ak contentement nag man bu rëy toog fii tey jotaay bu ma mas a toog jàpp naa ne jotaay bi gënu koo kawe ndax jotaay gor la jotaay liggéeykat kon nag na leen wér ni dara forcé ma pour ma ñëw fii du dul sama coobaree bopp ndax wax mën naa yegg fu la neexul de sa alal mën naa yegg fu la neexul waaye tànk fu mu dem dëgg la bu boroom amee fulla kon nag sama ñëw fii ñëw bu ma neex la ñëw bu ma décideel sama bopp la waaye nag balaa maa dugg ci solo bu yëf damay nuyu président bi muy Eliman mii taxaw tuuti ci moom ndax day nit ku ne dinga nga mës a taxaw àdduna nit ñi taxawee la nga njege naa yow sa loxo nday yàlla na yéex kon nag lu waaye wax rek na sóoraale bis boobu élimande yi daje nañu nit ku ne administration di gis ku ne nit ku ne dina ñëw ci yow ku ne ak na muy ñëwee waaye bokkut na ci nit ñi nga xam ne man marqué nañ ci julliteem ci yaram ci dalam ci teeyam ndax jamono yi ñuy xamante mënoon naa tàng mënoon naa mettil mënoon naa yàkkamti mënoon naa xëccu waaye nag boo waxtaanee ak moom rek xam ne nit ku dal la nit ku teey la te it loolu tey moo indi lii ndax boo nee tekk rek tekk wan la yoon te boo doyloo sunu borom rek mu wan la ne man rek maa yàlla kon nag moom post bii mu yor mérité na ko juumu leen de vous avez un bon président te sama diggante moom lim ma wan doy ma ci taalibe jullite ak njiit bu dal moom ma tax ma gën a am courage ak responsabilité ñëw fi fekk seen bis bi loolu bokk na bokk na ci li ko gën a tax donte nag na ñuy demalee kilifa yi ñuy wax kilifa yu mag ci aada nañuy demalee kilifa yi ñuy wax kilifa diine noonu la ñu war a demele bépp population ci Touba ak ci Sénégal ndax amul xaj ak seen Sénégal ñun ñëpp a ko bokk ñëpp léeg-léeg jot bay ko dul maye ba ñëpp mën ñu administration mën a yegg fépp mais na ngeen xam ne amul xej ak seen son excellence monsieur le président de la république daf ñoo sant ñu jege population bi ndax mbaam nag tuuti na waaye ci jur gi la bokk de waaw te jaan nag lu waay laal ci genn ga rek mu yëpp kon nag nangeen xam ne ñu mat a seeti ngeen ñu mat a teewal ngeen moo tax tey ma am mbégte ak contentement teew fi di nuyu nag sunu mag ñu baax yi fi toog notable yi ndax nag olof njaay dina wax mat mag naa bàyyi cim réew rawatina nag un ancien inspecteur de la jeunesse koo xam ne sunu doyen la ci wàllu administration ci wàllu population kon xam na njëriñu association lii ngeen def lu am am solo la waaye nag il faut cadre bi institutionnel mooy li doyen wax association dañ koy jëmmal dañ koy wutali kayit loolu ngeen def ndax am na fu muy toll kayit di ngeen ko soxla te administration noonu lay doxee kon nag lii ngeen def am na solo organisation lu am solo la kon nag dinaa nuyu suñu doyen nuyu membre yi fi toog ak kilifa yi nga xam ne toog nañ fi ku nekk nag di kilifa fa nga ne li la yitteel tax laa dajaloo ànd jël nit jiital ko jël keneen toppatoo ca muy lii ngeen def ndax kat mbooloo mooy doole ñëpp a war a booloo te it yéen ñi ngeen bu ngeen booloowee kenn mënu leen a xañ seen ak ak seen yelleef te bu ngeen ko laajee di ngeen ci jot ndax nag li tax mbooloo baax benn bantu bale de boo ko jëlee mën nga koo damm ak sa benn loxo. waaye bale bi bu ay bant bale yu bari dajaloo ba mu doon bale takk bale boo ko téyee bëgg koo damm dana jafe trop looloo tax mbooloo baax lii ngeen def nag rafetlu naa ko trop parce que jotaay bi tuuti na ci lim mais dafa am qualité parce que kenn ku toog fi chef de garage nga kon mbooloo moo nekk sa ginnaaw te yow na la leer ne tu es un entrepreneur chef d'entreprise nga créateur d'emploi nga et li tax yéen ngeen am solo vous le regroupement des professionnels yéen vous êtes des recrutateurs sociaux parce que souvent produit bi nga xam ne ndax ñëpp mënuñu réussir ci école produit bi nga xam ne jaarul école amul chance jaar école wala ñu réussiruñ ci école wala seen njàng mutul la yegg yéen yéen leen di récupérer yéen da ngeen ci récupérer une grande partie ñu mujj nekk ay mécaniciens professionnels ñeneen récupérer ci une grande partie ñu nekk ay artisans dans d'autres domaines kon yéen yéen da ngeen di jàppale état dans sa politique de jeunesse dans sa politique d'emploi kon yéen xaw ma ku état war a demal waaye yéen war na leen demal te ñun nag loolu lañu président de la république sant mu nekk une administration de proximité suñu ko jot bi mayee képp ku ñu woo di organisation privée ou publique tegu ci yoon te liggéey tax laa jóg ñun war nañ cee dem yéen tappalewu leen ndax yéen ku ci xëyul liggéey doo am xaalis sa gaaraas bu tëjee doo am xaay kon dangay liggéey force kon li ngeen di liggéey tàppalewu leen ko da nga daf leen a lew te ndax am na ñoo xam ne mën nañoo bañ a liggéey tey lekk waaye yéen bu ngeen liggéeyul du ngeen lekk kon yéen tàppalewu leen rawatina nag ngeen jël nag seen doole ak seen xel di ci def ay dépannage gratuit ci événement yu religieux yu mag yi yu mel ne màggal Touba wala gàmmu Tivaouane wala leneen ak leneen ndax xam naa ne association moom non seulement du am couleur mais aussi dafay dimbale ñëpp loo xam ne ñoo ko tax a jóg ma leen di nag gannaaw temps bi dafa gàtt assurer sunu soutien ñun arrondissement de Ndaam ak samay kilifa yi ci département de Mbacké ba Diourbel na ngeen leer na assurer nañ leen sunu soutien ndax lii rek lañ doon xaar. ngeen organiser wu di liggéey te yàlla tax tey jàppale population ndax ku xam njëriñu oto xam njëriñu mécanicien ndax oto mécanique la ak électronique ala kulli alit foog muy paan sagam nit sax day paan kon nag bu paanee am na fu la paan bi di fekk di jaaxle jaaxle boo xam ne ki lay dépanne bu ñëwee ba dépanne di nga xam ne yàllaa ko yónni ci aw <laughs> ndax li may wax xam naa ci dara de ndax yor naa oto kon nag yéen mënu leen ñàkk ci société bi li am kay mooy ngeen gëm seen bopp nit ñëpp mënuñoo nekk ay bureaucrate nit ñëpp nekk ay inspecteur nit ñëpp nekk ay policier wala nga nekk préfet ba gouverneur ba président de la république no bu ñëpp dene président bu oto paanee ku koy réparé bu ñëpp doonee président ku sa daal dagg ku koy ñaw bu ñëpp doonee président bu heure añ jotee ku lay jox jën bu ñëpp doonee président <laughs> boo bëggee maafe ku lay jox gerte kon nag yàlla moo organiser àdduna noonu c'est la division du du travail social ku nekk am na fu la yàlla jagleel yaa koy defar wala nga yàq ko yaay gëm yàlla gëm sa bopp tekk ci li nga doon baa nga yàqal ko sa bopp yàlla nañu ko yàlla defal dañu nangu ndogal ndax amul kenn koo xam ne nit gën na fa nga nekk di liggéey di tedd ngir sa njaboot ndax société bi mënulaa ñàkk bu ñàkkoon dina am accident bu rëy rawatina nag ay mécanicien mécanique moom vraiment xawma lu sooxe ak lu ñu mën a ñàkk ci société bi mais waru cee bokk kon nag na ngeen xam ne seen mouvement bi aad ci adhéré naa ci te man au nom de l'état et personnellement lu ma leen mën a jàppale dinaa ko def te tàmbali woon naa ko ndax ñëw ngeen ay yoon yoon ci man te am naa yaakaar sama kemt lay kàttan jàpp naa ci danaa ko gën a yokk nag ba événement bu amatee bu leen hésité ngeen ñëw ci ñun tiitre personnel ak titre gouvernemental ñu jàpp leen ci carburant ci oto ci moyens ci logistique ak ci leneen ak leneen ak yombal bi sax parce que léeg-léeg mu am ay mu am ay mu am ay jafe-jafe waaye jafe-jafe yi ñu ci yëg yëpp membre APAT yi am ko bañ ñu téléphone defe naa ne ña ña leen téye woon wala ña leen kiiwee bañ amee suñu mandat ñun que ni ñii ay liggéeykatu APAT lañ bàyyi nañ leen ndax nag il faut ngeen comprendre nag état nag dafa am mission régalienne de contrôle ndax ñi raas dem ak ñi gàmm bokkuñu fii dañuy am sax ambulance xam nga yéen seen xel du daj ci ambulance boo xam ne day pin pin bi am ay nit ñu sol ay blouse yor ci takk ay euh, perfusion def ci ay lu ne fekk yàmbaa nekk ci biir fu ñu romb policiers yi naan ni ndeke yàmbaa nekk ci biir bu fees del wala ay xale yu ñu sàcc seen xel du ci dem mais bu gendarme ñaawul njot wala policier ñaaw njot ba daay ba affaire bi luus ci moom ba mu arrêté leen ñooñu duñ leen jàpp waaye bu ñu leen arrêté ba xam ne ah kii kat ab malade lay yóbbu wala ñii kat ay mécanicien apat lañ yàllaa tax ñuy liggéey ah moom boobaa état bi da ciy def ay ndimbal nag ndax xam na ne ñii ñoom dañ koy jàppale waaye nag la confiance n'exclut pas la contrôle nit ki loo ko wóolu wóolu du cee nag léeg ngay càmbar ndax état du nit te état nag moo tax control boobu ak sécurité boobu moo tax yéen bu ngeen tëddee ngeen mën a nelaw loolu bu amul woon sàmba yi dinañ def réew mi noo xam ne kon kenn dootul xam nu mu mel loolu kese la du bëgg sonal kenn kuy liggéey du bañ leen a jàppale dañ ko xamee noonu rek waaye luñ ci yëg dinañ ko yombal kon maa ngi leen di sant nag bu baax ci lépp lu ngeen ne defal état du Sénégal di ko defal gouvernement bi di ko defal population bi di ma ko defal maa ngi leen di sant bu baax di ñaan yàlla mi am fay mu fay leen allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa salli nabiil ummihi wala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman jërëjëf sëñ Modou Lo Ngabou président Elimane Ngom ak mbooleem artisan yi mu àndal bokk association bi waa APAT yëpp ñu ngi leen nuyu nuyu ba gën a kawe di leen dolli ay xalaat di leen ñaax ci takkoo bi ngeen ànd te yàlla ak yonent Sëriñ Tuubaa tax li ngeen liggéey yàlla ak Sëriñ Tuubaa ngeen koy def yàlla leen Sëriñ Tuubaa fay ngeen gëgë fay gëgën ci pay yi dama fee teew ci ñaari pànn président chambre de métier Diourbel artisan comme yéen lu bokk dëkk bi ngeen gi dëkk di benn di taalibe rek te lépp ci taalibe ko teg ndax àddina dafa bindoo nii nit ki soo amulee métier féetoo fenn xalsan ngaa sonn waaye boo amee métier tuut tuut nga respecté jàpp ko te góorgóor si yàlla mën naa dimbali ba yu bari dana teggi kon bu ñu bokkee chambre de ndax état li mu teg mooy ñaari chambre consulaire moo fi ne à savoir chambre de commerce ak chambre de métier commerçant yi ñoo jëm chambre de chambre de métier spécial bépp way xaral fa nga jëm te Sénégal boo ko seetee li fi nekk ci way xaral la xamuñu mu toll léegi laa jógee réunion doon directeur de l' apprentissage monsieur Ousmane Dia ñu tënee benn réunion ak gouverneur ak IA yi ak lépp ñoo xam ne séq séq nañu problème apprentissage 480 000 lañu classe ci apprenti yu nekk ci atelier yi te booy seet évaluer daanaka quatre-vingt mille kon xam nga mbir mi doy na waar ndax ci bari dim seet lu ñu mën a am apprentissage moo ëpp doole lépp lu ñu mën a def ndax mbir dañoo fas yéene ancien système ba ñu yoroon dañ koy yokk amélioré ku ñu ko amélioré mooy banque mondiale dafa jox gouvernement Sénégal jëm ci apprentissage bi ñuy wax 30 milliards yoo xam ne dañu ko destiné uniquement pour maître artisan yi muy yéen ñi jàngal xale yi métier mi ak xale yi ngeen yor ñu ciblé leen kenn ku ne fa nga nekk yor xale yi nga yor dañuy fas yéene jàppale la ñu reconnaître lañu fa boo amul fiche da nga wuti fiche bindu ko ñu jàppale la nu jàppale pendant cinq ans xale yi nga yor nga jàngal leen métier xale yi naam dana am lu ñu toppati leen ko jox yow mi leen jàngal des na rawatina diplôme yi jox certification bi dañuy certifié yow mi maître artisan bi joxal la diplôme boo xam ne mooy gën a kawe bu xale bi ba bu génnee moom mi xale bu génnee ak certificat am dikk naa sama maître am ko dana am boo xam ne moo gën a kawe boobu maître bi lañ ko jox ba pare des na ko jàpp des na ko encadré jox ko matériel dimbali leen jàpp leen ba encadré ba insérer kon noo mën a dimbali suñu bopp ñu koy dimbalee mooy ñun carte professionnelle carte professionnelle état ko teg parce que état li mu indi muy chambre de métier tant que amoo carte professionnelle bay boo nga dàqal liggéey oto yàlla mu ngi nu sàkk mais bàyyi jagal la état yi tuddee ngay doon moo doon leneen pourquoi pas kon lii jëfewul ndax dañ la ni chauffeur bii képp jëm mbàkkee euh, oto ñi ma doon oto amul yoon bu ñu yow carte yi moo leen ni kii mooy mooy sa carte ndax dinaa xam ne lii mooy sa métier lii mooy sa professionnel foo jëm mën ko ànd ak moo jëm te li ñuy dox mooy état fi mu ne lu man di jóg di teg tant que amoo carte fi mu ne mënoo dugg ci lenn lu mu la faale ba mu yëg la ñii tukki sax léegi boo demee ambassade d'Amérique boo dem dañu copie carte ngay boole euh, carte bi sinon boo demande du ñu ngay xëccoo marché di commerçant am euh, entrepreneur loo mën a def xëccoo marché bi te amoo numéro euh, répertoire bi nekk euh, carte bi boo ko xëccoo marché bi ak koo xam ne amu ko doo ko gañe ak loo mën ne doo ko gañe yow mi kat état loolu foofu leen di nekk rek ubbi na ni leen dem leen bindu ji ngeen dugg chambre de métier kenn obligé ci leen nga train lànk ba ca dem loo ca dal ëllëg yaa ko xam te suppa am nañu document boo xam ne dañ ko sëqa waa UEMOA nouveau texte yi dañu wax ne la boo toog foo toog pendant 6 mois ubbi atelier dañu ñëw fekk sa atelier nga fay dañu ko tëj da nga wuti carte professionnelle par la force mënut a ñàkk kon daw ca ba nga amee tànk carte bi ut ko jëfewul li tax jëfewul mooy soo laajee ñu renseigné la na ngay defoon koo am soo laajee te xamoo ndax carte ya ñuy laaj amoo ko mën naa yomb parce que loo fi loo fekkee seet ki la jàngal métier amun laa certifié soo ma waxee ma ñëw seet fa nga liggéey xam ne ma defal benn fiche d'enquête ak demande bi remplir ko mu remplacer certificat boobu mu dem commission bu demee commission day jàll. commission bi nag doo ci dugg ndax Sidi Niass mii chambre ci la bokk membre assemblée wàllu commission yi say carte yi képp ku am carte ci région bi. ak ñaar ñetti mi ko boole muy ñeent ak gouverneur ak ñeenti mi ko copté ñooy saytu carte bu jaar chambre de métier bi ne dañu toog waxtaan ko dossier par dossier gëstu ko ba nga xam ne kii yelloo na ko ñu dem commission bu dee pare chambre de métier bi dëgg day dellusiwaat ñu soog ko formuler tàpp ko machine ko jox ko borom kon. loolu laa ma ci mu leen di wax ngeen invité ngeen góorgóorlu fexe ba am ko. gërëm di lay wan ne lii ñu nekk daal gis naa ne liggéey sëriñ Touba la liggéey sëriñ Touba li ma ko daan waxee fii nee leen <clears throat> ñun ñëpp ku ci nekk mën ngaa nekk daanaka sa président bopp ndax bokk liñ bëgg liñ bokk lépp ci sëriñ Touba jëm ñas euh, mii nag maa ngi koy sant ndax moom mag la mi ñuy jiite ci wàllu liggéey bi boole kooku nag oyof. maanaam wàcce boppam ba mën a tolloog ñun kon loolu ñoo ngi ci gërëm di ci gërëm nag président ndax jàmbaar la jàmbaar la bëgg na liggéey bi mu jëm kanam rek la bëgg kon boog maa ngi koy ñaanal yan bii ko suñ euh, bi ñu ko yan yàlla na woyof toy ci kawam ci barke Serigne Touba